internet Dakar midi ñoo amati mbégte ak kontaan te nee naa leen demee saa su ne ah bi nga xam ne li mu mbir mu pandémie bi Covid 19 bi bi di leen nga xamante ne tamit ah, ñu ngi koy joxe ndax ñu ngi koy respecté parce que gis nañ fan yi ñu ngi lay nuyu salaamaaleykum ñu ngi lay fay. di la laaj tur bi nan la. Diop ambulancier poste de sante Petit Mbao. El Hadj Malick Diop ñu gis euh, euh, jamono ji li nga xamante ne mooy euh, pandémie bi yokkaan na yan matuwaay ngeen ciy jël. waaw pandémie bi matuwaay yi ñu ciy jël mooy la fois passée ci première vague bi ñu amoon donc autorité yi ñëwoon nañ fi donc jox ñu ay masques alcogel ak ay euh, soo yoo xamante ni ci la ñuy raxasoo donc euh, euh, chauffeurs yi yëpp doon sensibiliser clients yi donc respecter mesure de barrière yi ba yàlla dogal na daal donc ci wàllu garage bi comme mooy buntu dëkk bi donc yàlla dimbali nañ ci daal ba amuñu lenn loo xamante ni rek wax nañ ko fi ci wàllu ka contact ci chauffeurs yi ak ñu ñu yab donc loolu daal ñu koy rafet rafetlu beneen bi euh, euh, sollicité nañu woon euh, monsieur le maire di ko wax ni dañoo bëggoon defar fi douche ak mbaar boo xamante ni dinañ ci mën a seerlu ah yàlla dogal mu amoon ay jéego yum ci dox ba am indi lu ñu ay autorisation donc de construire am amit avalu ministre de l'environnement mu joxoon ñu it ay ndimbal yoo xamante ni daal ñu ngi entamé pour comme Covid bi dafa ñëw te ku xam ni fii àll la donc war nañu am toilette boo xamante ni bu mucc ayib ba ku itteewoo sa bopp mën cee mën a jumtukaay ba nga xamante ni feebar bi bu dikkee di ci mën a mucc loolu daal moo doon ah, solo yi ah yàlla dogal na nag en unanimité garage bi yëpp ànd nañ ci loolu donc ñu ngi xaar ah, ndimbalu état bi bi ci jiitu nag mooy monsieur le maire te xam naa ni ah, na mu doon def dina ko defaat. ah ñu ngi koy xaar ak benn autorité boo xamante ni rek ah, ah, mën nga ñoo dimbali ci loolu parce que euh, fii mooy buntu dëkk bi donc loolu daal mooy sabab bi. ah ñu gis ah, jamono ji ñu toll ñu ngi gën a suñu cas ñu ngi ko gën a arrêté ñu muy gën di yokku bi nga xamante ne sax li nga xamante ne actuellement yi fi am di pass sax amu fi woon mooy si ay cas yu bari. ba ñu ngi wax dañuy delluwaat état d'urgence dañuy delluwaat ci li nga mi arrêté yenn ak yenn et cetera yeneen dëkk yi te gis nañ fii garage la place yéen yéen motuwaay ngeen ci war a jël ci wàllum alcogel wala ay ma xamante pour nit ñi di raxasu ak li nga ñu amul masque ñu ngi wax ñu ngi wax di sensibiliser client yi képp kuy dugg ci oto yi na nga takk sa masque waaw donc alcogel donc gars yi dinañ ko toppatoo dans les plus brefs délais pour euh, chauffeur bu nekk mën a am alcogel ci sa oto donc nga mun a laal ñëpp parce que euh, cas bi comme ni nga ko waxee nii donc dafa day waar kenn xamul na kan moo ko yor donc ñi ñi ñi fagaru euh, balaa ñoo lakkale moo moo ëpp solo waaw di di di di gën a soññaat gars yi ci set waaw parce que feebar bi li koy indi mooy ñàkk set waaw te loolu nag dafa war a dañ ci suñu dëkk waaw lii daal buñ ko defee yàlla mun nañu muccale ci ah, feebar bi muccal ci mbooloo mu julit waaw loolu daal mooy ah, sabab bi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax waaw di kontaan ci yow mi fi ñëw parce que ah, lii daal dafay mel ni rek kon yéen a ñuy bàyyi xel waaw di leen ñaanal it seen kilifa waaw ñoo ngi lay fay kilifa yi la Babacar Pouy. Babacar Pouy ah, ñu ah, jamono ji ñu toll li nga xamante ne mooy troisième vague yi ñëwaat na. Hmm. actuellement gis nañ xamante ne moo fi a garaaw parce xamante ne tey jamono ji ñu ngi arrêté ay cas yoo xam ne mosuñu ko arrêté depuis ba corona ñëwee si Sénégal ba léegi. ñëw fekk mooy yéen garage ci fii euh, bokk na si loo xamante ngeen rassemblé ci lu bëree bëree bëri yan motuwaay ngeen di jël ci li nga xamante mooy feebar bi ndax seen i client dañuy respecté li nga xam mooy masque yi ak tamit yan jàppale li nga war a mën a dimbali tamit pour nga xamante ne nit ñi dem ak digg pour mu yomb ci yéen. waaw puis fii may tàmbalee mooy état bi moom xaaruñu dara ci moom quoi. parce que booy xool bu fekkee corona am na sax troisième vague bi ñoom ñoo ko fi indi quoi. est-ce que comprendre mais man gëw ma gëw ma corona quoi. même su demee ba am benn chose bu ñu créé la parce que occidentaux yi gis nañ ni ñuy doxalee. parce que dafa yenuwul maanaam bu fekkee corona dafa am. kon du ñu organiser coupe d'Europe pourtant gis yaa ngi comprendre man si man nag gëw ma ko quoi wax dëgg yàlla gëw ma corona franchement parler donte ñoo ngi jël suñuy disposition ñoo ngi aar suñu bopp man des fois ma takk masque des fois du ma takk masque te musuma gis ku corona la moo tax du ñu wan ne ñii nii dañoo corona ñu ñu mën a gëm ni lii nii am na mais man tant que aw ma preuve à l'appui du ma ko mës a gëm wax dëgg yàlla te di ñëwaat tam mën naa wax si vaccin yi vaccin yi ku ma déggal bul ko mës a vacciné wu parce que vaccin yoo xam ne musumaa gis vaccin boo xam ne si benn un deux ans ñu créé vaccin ne baax na te vaccin si yoon war na jël dix ans plus de quinze ans kon loolu noonu du yoon ñu koy vacciner nit ñi ñu koy nangu maa ngi gis district bi fii nii sanitaire bi ñoo ngi def ay vaccin mais man ku ma déggal doo dem foofu di vacciner wu franchement parle parce que vaccin yi wóorul déjà looloo ah, loolu laa amoon lu ma si wax. gis nañ li nga xamante ne tey mooy euh, pandémie bi actuellement kan yi dañ doon surveiller li nga xamante ne tey mooy ñenn ñi nekk si yenn milliers yi. Uh-huh. jox nañ fi artistes uh-huh. jox fi ñeneen ak ñeneen et cetera mais est ce que yéen chauffeurs yi nga xamante ne yéen yor calendrier est ce que yéen jot ngeen si. jotuñu si dara lépp lu ñu def rek ñoo ko defal sunu bopp. ñoo jënd gel ñoo jënd masque. ñoo jënd gel teg ko sunu sunu oto yi mais gisuñu fi benn nguur te nguur bi wax dëgg yàlla ku yaakaar si ñoom xam naa di nga fande quoi ndax li nga yaakaar doo ko mës a gis ay wax yi kese lañ fiy wax franchement loolu moo nekkoon sama xalaat. au moins parti sénégalais gëmuñu corona bi am na Sénégal lan la communication état moo baaxul wala. mais dañoo am état bu ñu yàgg fen rek lool kese la moo tax duñu leen mës a gëm grand bu man ragaluma li may wax quoi boo amee njiit bu lay fen pendant 2012 ba 2000 lan 2021 mu lay fen kooku bu la waxee lenn suba di nga ko gëm doo ko gëm franchement parle gëwuma ko. jóge nañ ci yéen ak ñi nga xamante ne tey mooy ñu féete côté euh, état bi nee nañ ñi nga xamante ne actuellement ñoo ñoo bañ que li nga xamante mooy corona bi mu dañoo nekk euh, euh, mooy mooy opposant yi ak ñi nga parce que loolu ay wax politiciens la nga ne corona bi am na fii parce que mënuñu ñoo gis ne président def na ay tournée yu bëree bëri ba ñu ko corona ci réew mi am na ñu bëri ñoo bañ côté boobu. mais dëgg la ñoo yay bañ parce que man mënu ma comprendre corona mu par exemple mosu fee jóge mm. léegi lan moo taxoon muy def ay tournée économie ay tournée déguisée utiliser xaw ma sax nan laa ko war a mën a tuddee mais franchement parler man si man corona amul quoi ndax am corona su amoon moom mii di njiit xam ne moo jiite kulli sénégalais moom moo war a njëkk woote si xeex bi est-ce que mais defu ko bu fekkee corona dafa am cas yi fi yokk yëpp comme moom moo ko yokk quoi Macky Sall moom si boppam. Hmm. état d'urgence est que dina arrangé yéen si. état arrangé wul kenn du chauffeur yi kese arrangé wul benn sénégalais. ndax ñun ñooy ñun ñooy taaba taab pour dundal suñu njaboot wala suñuy waajur est-ce que kon arrangé wuñu wax dëgg yàlla te état d'urgence bi bu ko bu ko bu ko fi defaatee pour son propre intérêt la mais du pour intérêt population bi loolu kese la bañ na gars yi dem defi ji ay politique comme Sonko tourné nemmeeku bi mu bëggoon def loolu lay bañ moo tax mu bëgg tëjaat sénégalais yi loolu kese la du leneen loolu kese la ak euh, li nga mooy li nga xamante ne mooy comme yéen amoon leen situation yi yéen ñi nga xam mooy chauffeur ci hmm. bu ñu ñëwee ba toll jamono jooju noonu da ngeen pare pour yokk seen i paas diggante fi euh, ngeen jëm ah. wala tamit da ngeen koy bàyyi fi mu nekkoon wala ak oto yi ñu limité li nga xamante ne mooy client yi ah bu ñu demee ba limité client yi c'est obligé ñu yokk paas parce que ñun bii mu fiy doog a ay ñaari personnes xaw ma trois personnes la ñu doon imposé mu gi deux cent deux cent lañ ko defoon fukki dërëm rek lañ si yokk ah yokkaatuñ si leneen loolu kese jaajëf ñu ngi lay jaajëfal waaw ñu lay jaajëfal bu baax jaajëfaay. asalaamaaleykum waaw papa ñu ngi lay nuyu. waaw ñu lay fay ñu ngi lay bu baax a baax. dina laaj euh, tur la. Fallou mbay Fallou Mbaye waaw. papa ñuy gis euh, par rapport jamono ji li nga xamante ne mooy Covid 19 bi gis nañu yokku na yokk boo xamante ne tey mara détaillé li nga xamante ne mooy troisième vague bi defe naa ne moom am na fi. parce que li bi fi jàll sax bi bii moo ëpp ay li nga xamante mooy ay cas que yéen en tant que yi nga xamante ne yéen si seen fii milieu public la da ngeen rassemblé yéen motuwaay ngeen ci jël ah, matuwaay yi daal man li ma ci gis fi nekk moom kenn ku nekk yëf yi nga def ko comme sa fi bopp waaye fi doon moom jaaxal nañu jaaxal goo xamante ne wax dëgg ah, moom kenn mënu ci kenn mënu laa la nekk li nga dégg fii ci ñu am na ko dëj yi bëri nañu dajaloo dajaloo bi itam nit ñi léegi daal kenn ku nekk daal moom yaa war a xelef ne feebar bi lu am la loo xam te nii da nga ko téye comme say bopp bu ñu ko def boo ko defee comme ni sa bopp rek ñëpp danañ mën a dana mën a dana mën a baax daal waaye fi doon nit ñi seen xel nekkul ci feebar bi sax ñu ngi rajo ci oto yi yëg ko wàcceeg wàcceeg lu nekk ñoom ñu ngi koy def daal waaw loolu daal moo andi kii bi moo andi yëf yi mu daal bu buñ sañeen daal fépp waaye nekk di set set daal mooy li nga xam te ni gën na am solo ci feebar bi man raxasoog mu sol masque mu euh, taw li nga xam daal ñu ngi koy docteur ñu ngi koy digle. nga def ko man daal loolu laa gis. waaw mais gis nañ ci yenn Sénégalais nangu ñoo gëm ba léegi ne feer bi am na boo xëy ñu la mosuñu su am ah, ne moom seen xel nekkul seen bopp rek feer bi loo am la boo seetee ne fi ndel nii boo seetee ne tabaski léegi nii rek li nga fi dégg ci ay marde bi ci kenn mënu la ko ci kaar amu ah, benn ñu ngi dugg ci kaar yi chaque jour di rajte loolu dem dem beeg ñëw bi bëri ba a man daal affaire bi moom wax dëgg yàlla jaaxal na ma loolu bu ma xëyee daal suba gi daal man damay wax mooy nit ñi a ah, nañ mooy moytu jaxasoo bu bëri bi wut ay masque sol ko a ah, li kër docteur digle nañ ko def comme man a piqûre piqûre ju vaccin bi man mi wax piqûre naa ñaar yëpp waaw man daal loolu laa ci xam waaw jërëjëf actuellement par rapport ak ak ak pandémie bi ak par rapport ak yéen yi nga xamante ne tam mooy yéen chauffeur si tamit ah yéen yan motuwaay ngeen war a mën a jël tamit bi nga xamante ne mbooloo mi dinañu waxtaan fi dool nii pour defaat nañ defoon bu njëkk maanaam wutaat sel ak euh, kii bi pour di raxasu sa client bu fi dugg ñu xool daal nga dem raxasu ji def sel man daal loolu laa ci daal loolu mu gën a gaaw fi mu nekk nii nit ñi nag dañoo a ko a wut ay agent yoo état d'urgence euh, nangu ngeen mu ñëwaat mooy tëj amul solo amul état d'urgence tam jëriñu ci dara day gën a yokk nit ñi fitna nit ñi tam ñu ngi ci jaaxle jamono naqari na euh, ngay def ay état d'urgence di dajale di di di téye nit ñi nit ñi nga xam ne kenn ku nekk boo xëyee suba la nga liggéey suba nga koy am ba ngoon gi jot nga bëgg koo téye loolu loolu loolu ay wax ju yàqu la rek état d'urgence moom war waratu ñi moom nit ñi daal ñoo war a taxaw rek la seen bopp te delloo seen bopp seen delloo seen bopp ci seen xel waaw kenn ku nekk nga jaar ci digle kër docteur yi man daa loolu laa gis waaw loolu daal laa jërëjëf jërëjëf waay jërëjëf asalaamaaleykum kilifa gi maa ngi leen waaw maa ngi lay sant bu baax a baax. di la laaj tur bi naan la. Ah, Amadou Ba la. Amadou Ba Amadou Ba Amadou Ba ñu gis ah, jamono ji ñu toll ci réew mi Sénégal ah, pandémie bi yokku na fi lool troisième vague mun nañu ñëwaat na li ñu enregistré si ay cas semaine bi mosuñu ko enregistré depuis fi corona bi ñëw ak léegi yan motuwaay ngeen ci jël en tant que yéen nga xamante ne yéenay chauffeur si ak si ngeen fi ngeen nekk te muy gaz boo xam ne gaz public la day rassembler yan motuwaay ngeen ci war a mën a jël. waaw wax dëgg yàlla kontaan nañ trop euh, ba la doxee ba la doxee fii ñëw fii wàllum chauffeur yi di ñu nemmeeku du xam ni di di xool nag chauffeur fu ñu teg mbir it déet dëgg la tamit euh, pandémie bi ñun chauffeur yi jël nañ si disposition même si nekkul de euh, monsieur le maire li muy def si garage bi sax mais ñun si ñu kees suñu keesu garage dañuy jël suñu disposition jël si gel hydroalcoolique Euh, euh, ut suñuy ndoxat suñuy lépp parce que jamono ji chauffeur yëpp dañoo dem tabaski ji moo tax la majeure partie fekku la mais soo fi ñëwoon na fa fekk lu bëri nañu ñëpp liggéeyuñu waaw loolu la daal mais daal da ñooy jël suñu matukaay bu mag oto oto balaa oto bu nekk suba teel soo yeewoo suba teel balaa laa yeb fii client dina dem raxasi ko fee ba pare dañoo door a yeb fii kee pour pour euh, at at at distanciation bi donc chauffeur yi ñu ngi koy respecté daal ñu ngi koy ñu ngi koy respecté même petit client ñu ngi koy respecté gis nañ première vague ba mu ñëwee bokk na ci coono gi nga xamante yéen safari yéen ko gënoon a jànkonteel wàññi li nga xam ne nombre clients yi jël wàññi lu bëree bëree survation yi nga xamante état bi joxe na ko est-ce que safar si jot na ci seen wàll wat wax dëgg yàlla ñun si waa garage bi wax dëgg yàlla ñun ñi surfa ba ñuy ñëw si jëm boobu oto yi ñaar lañu woon yàpp ak safar mi ñett mais yokkuñu benn yoon passé waaw Petit Mbao yëpp seede nañ lool mais boobu ba léegi nag euh, garage yëpp jot nañ nag même ba si Jakarta yi sa jot nañ seen i surface mais amul benn transport irrégulier ci garage buy kalaado mu jot euh, surface amul waaw amul benn dërëm boo xam ne jox nañ ñu ko mais tamit duñ tam comme que comme que ñu dañ ñoo traité dañ ñoo teg ci ñu li ñu wax ñu ne transport irrégulier kon nag duñu duñ ci mën a wax daal mais yaakaaroon naa bu doon dimbal day jaadu ñun lañ waroon a gën a dimbali waaw li nga xamante ne tey ñu ngi ci bëgg a dem muy état d'urgence ak euh, tëj yenn kii ku fa indiwaat ko est-ce que loolu tamit dina arranger yéen chauffeur si est-ce que ànd ngeen ci loolu. waaw xam na euh, wérgu yaramu doomu aadama moo gën si loo gis. Mm-hmm. donc bu dee tey ji dañoo tëj euh, bu dee tey ji ñoom li ñuy wane ñoom dëgg la si ñoom. Mm-hmm. ñu tëj ñu tëj dëkk bi dëgg la si. Mm-hmm. loolu loolu da def ñu si ànd parce que nit ku nekk xam na nit ku feebarul doo xam lu garab di jar. mais soo feebaree di dem hôpital di faju di ñëw dina xam lii la garab di jar. waaw donc ñun daal dañuy ñaan yàlla rek feebar bu ñu jëlee ñu fi parce que même si ñu nee feebar bi sax ñun def ñuy tiital chauffeur yëpp daf leen tiital waaw ton nañ feebar bu jóge fi moom la ñuy ñaan ñun mais ñaan ñu yàlla mu des fi mu jóge fi daal ñun moom la ñuy ñaan. yan matuwaay jël seen diggante client yi nga xamante ne am na nga xam ne ñoo sama yi nga xaw a dëgër bopp duñ nangoo takk masque bëgg a yëg bi tamit. waaw client yi moom loolu si chauffeur bi la parce que ñun garage yi suñu bureau bureau garage bi si jëm boppam. Euh, dañoo jël suñu matukaay yu mat sëkk fii ku fi takkul masque à partir de lundi du yéeg ci benn oto waaw ñun ñun chauffeur dañ cee teg suñu matukaay parce que suñu feebaree tam ñooy faj oto comme que ñun gars yi ñëw nañu séddoo sédd ñëpp bàyyi ñu te ñun tamit ñun tamit nañ xool ñun lan la ñuy defee suñu matukaay mais yaakaaroon naa ne état suy demoon tey ji bay sédd ba sédd garage yi ba sédd Jakarta yaakaar naa ñun waroon nañ ci mën a bokk parce que ñun dañoo am jabar yar ay doom mais état nag daf ñoo bàddi mais dama mais nag ko ko bàyyil mu demal day ba xam na xam na olof Njaay dafa ne kuy jaay ker mm-hmm. waaw ci kuy jaay ker dégg na olof boobu yow sëñ bi ah eh. kuy jaay ker mm-hmm. su guddi jotee doo war a laalli ah mm-hmm. parce que soo jaay ker guddi doo jaral dëgg <laughs> bu fekkee féeg la mais euh, bu ñuy laata état d'urgence bi pare ngeen pour bàyyi passé fi mu ne comme wala ngeen ko jël da ngeen koy xaw a euh, yokku waaw ñun moom wax dëgg wax dëgg yàlla fu mu toll nii fu mu toll nii nii nii nii nii dëgg yàlla xam nañ ñun dañoo am ay suñu client fixe suñu client yoo xam ne dañoo fidèle mm-hmm. démb ba léegi ñooy ànd ñun 44 bi sax day taxaw fee client yi war koo jël ñoom duñ ko jël ñu jël ñu ñoom fii jël suñu oto yi am na client yoo xam ne fidèle ñu mais suñu client yi fidèle yi mm-hmm. moom moo waral dërëm duñ ko yokk suñu paas yi ndax fidélité bi ndax kóllëre bu ñu sekkat ñoom waaw loolu jërëjëf sant ngir ma ah, jaral na la. jërëjëf sëñ bi jërëjëf yàlla la yàlla dimbali merci beaucoup. ah nga. Ah, la. maa ngi tudd Mamadou Ndiaye. Mm-hmm. papa gis li nga xamante mooy troisième vague ñëwaat na ci réew mi. Mm-hmm. pandémie bi yokkaan na. bi bari na fi lool. yan motuwaay yi nga xamante ne tey sénégalais yi ñu war a jël si mooy feebar bi. Mm-hmm. Euh, jëkkoon nga ma laaj ndax troisième vague am na wala amul. waaw ci loolu nag laa lay jëkka wuyu troisième vague gëm naa ne am na li tax ma gëm ko la presse te loo naan loo naan dana màtt ak du màtt bañ koo jox sa loxo moo gën ba ba ngay xam ndax màtt dana màtt wala du màtt euh, renseignement yi ñu mën a information yi ñu mën a am yëpp presse bi mooñ ko jox mais du loo xam dañ ciy teg suñu bët ah di ko gis donc foofu yi tamit xam nañ fa pêcher waaw pour nous convaincre bon maintenant quant aux mesures que l'on doit prendre les mesures doivent être proportionnelles mm-hmm. euh, à l'étendue du danger futur parce qu'on dit que euh, la capacité d'accueil n'est pas suffisante. On risque d'être débordé. Donc il y a des mesures qui doivent s'imposer. Les rassemblements publics, mmh. déplacements sans masque, mmh. doivent être rigoureusement surveillés. Et une loi est à respecter. Mm-hmm. et les mesures d'hygiène aussi, avec une plus grande sensibilisation, parce que les mesures d'hygiène, ce sont des mesures domestiques. Tandis que pour, pour, euh, le port euh, du masque, hein, c'est dans la maison et à l'extérieur de la maison. Voilà. Tout doit être rigoureusement euh, surveiller et sanctionner pour les contre, contre les Voilà ce que j'avais à dire. Tout en souhaitant un net recul à l'avancée de cette pandémie et à sa disparition. salaamaaleykum maa ngi leen nuyu waaw man li ma ciy wax mooy euh, na nit ñi euh, jël seen mesure prévention parce que sol ay masque di raxas seen loxo yi di moytu distanciation di ko respecté di bañ a dem ci yenn mbooloo yi hmm. ah parce que pandémie bi moment yi ñuy wax ni troisième vague bi dafa gën a grave vague yi fi jaar yëpp te état bi l' état a pris tous les mesures mais nit ñi ñoo war a jàppale seen bopp te xam ne feebar bu ñëwee ci àdduna ñu ne feebar bi day rey feebar bu mën a doon rawatina ñu naan Covid ñu ñëwaat ci troisième vague nit ñi dañoo war a jël seen matuwaay matuwaay yi dafa am solo nit ñi dañu ko war a jël bu ñu ko jëlee ah di sangu di aar xale yi di leen bàyyi ñu bañ a dem ci yenn mboolooy jël gel ah takk ay masque hmm? bañ dem ci yenn affaires yi daal parce que waaw nit daal da nga war a respecté sa parce que feebar bu ñëwee moom fu nekk distanciation yi surtout dañ koy respecté surtout nañ koy respecté ba ci transport bi dañu war a respecté lépp mmh. waaw parce que Sénégal lañ nekk te vraiment ñenn ñi amuñu moyen sax pour dem faju ji donc comme yàlla dafa def aussi ñun foofu lañ toll nañ jàppale suñu bopp waaw loolu daal laa amal lu wax gis nañ ñenn ci Sénégalais nag gëmuñu li nga xam ne mooy feebar bi non feebar dafa am feebar bi dafa am ndax euh, lu kenn nit a ko wax wala ñaar nit monde entier moo ko wax lu monde entier wax nag loolu dëgg la waaw bu fekkoon kenn ko wax rek wala ñaar ñu bañ ko gëm mais loo xam ne ñu ngi koy dund depuis presque ay at bon te monde entier moo ko wax lu monde entier wax nag donc nit ñi dañ ko war a gëm ndax ñun ay nit lañu ñooñu di ko wax ay nit lañu ñun itam ay nit lañu kon dañ ko war a gëm dañ ko war a gëm bien que bon nit ñi ñu ngi naan dal na la kii dalul kee mais dañ ko war a gëm ndax sibiru daf fi am mu dal kii bañ a dal kële et pourtant ça existe corona nag moo gën a graaw surtout nag troisième vague bi troisième vague bi moom yàlla na ko fi yàlla jëlee quoi dañuy ñaan yàlla yàlla jëlee ko fi ba ku ne delluwaat ci say activité mais dañuy bañ li ñu daloon ci premier yeeg deuxième bi gën ñu dalaat fii ndax toog fi ñu tëj dëkk bi kenn bañ a liggéey ñëpp toog loolu baaxul loolu arrangé wul kenn waaw loolu daal laa amul wax wasalaam jërëjëf macha